بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة الهدر وما أدريك ما ليلة الهدر ليلة الهدر خير من الألف سهر تنصل الملائكة وروح فيها بإذن رب من كل أمر سلام هي عتام الليل الفجر صدع الله العظيم ñoo ngi yëg wax ci kàddu sëriñ Fallou Diop moom sëñ Abdou Jamil Diop mu ko fi nekkal ci kaw suuf te mate ko màggal gi mu baaxoo def at mu jot di juróomi fan ci weeru koor dëppoog la vingt ci mars di ci jiital nag sëriñ Mountakha Mbacké ci ndigalam ak sëñ Abdourahim Diop di ci seen ndigal la ci la ciy waxee di ko yëgal nag bokki taalibe bi yëpp di ko yëgal képp ku aju ci kër sëñ sàmbu Diop mu ngi la koy yëgal nañ ni aju ci kër Serigne Abdou Jamil Diop ak góor ak jigen mak ak ndaw ak rakam di ci euh, rakkam Serigne euh, Sam Diop ak Serigne diri Diop ak euh, Serigne Cheikh Serigne fallu Diop mi wax ak yeen ak Serigne Cheikh Badar ak Abdourahim ak Amsa Diop ak Sohibou Diop Italie ñom ñëpp ñoo ngi leen ñoo leen koy yegal ci seen tour ci digalul nag sëñ fallu mi nga xani mom mo koy soñé ñoo ngi di ko def dan da doo baaxoo magal gi gi ko koog euh, euh, mag euh, ñaan gi daan ñaanal sëñ Abdou Jamil ñu bolé ko ci muy kon nga xani ne dañuy ñaanal sëñ soñu bu mbacké ak sëriñ Abdou Jamil ñoo ngi soññi nag bokki julit yépp ak bokki talib yépp yëpp ñoo ngi soññi nag bokki alcorane yi mu ko daan wax képp ku nga xani yor nga daara te di wala mu xam la wala nga di julit mi ngi lay sonni ci alquran gi daara yëpp dal man naa yi ci Touba ba ci njaareem mi ngi sonni daara yëpp képp lu ci waay man dimbal ci alquran nga dimbal ci ak xasayidit ak salatu ala nabi ñoo ngi sonni wa Kajoor gep rek bàyyiwul fenn liko dara dër sam bax daas tagar señ bi neena na mi ngi sonni ñepp rek mu ngi sonni ñepp lu ci waay man defon dal na na ni ko rek ren ji la ko gëna fonk wa diaspora betam ñoo ngi leen li ko dari Italie France Espagne fépp ñoo ngi leen di soññi. tey nag lii lay bisam ku koy fay daal ku koy fay fay ko ci bisam ndax tey bisam muy le vingt la cinq ci koor gi loolooy bisam amul lenn lu dul loolu. di ñaan nag ci sëriñ Touba yàlla nañ ci dëppoo ngërëm siñ tuwaa ñu leen di nuyu te di leen siyaare tey jiital ci nuyoo beeg siyaar bi sëriñ Fallou Diop ak mboolem ay rakkam yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare. te di leen ñaanal bis bi nga xam ne moom lañ dëgmal ñu fekk ko te tal ko te daje cee ngërëmul sëñ bi sëñ bi nag mi mi ngi wax ne mi ngi ciy soññi ñi mu ci daan soññi ñëpp képp ku dégg soññee bi rek mooy sa mooy sa mooy sa mooy sa mooy sa soññee waa daayira bi ci daan jàpp muy daayira bi nga xam ne koñ bi dëkkandoo yi ak daayira Moustapha Niang Daaru Tansiir bàyyiwun fenn bàyyiwun ñenn kenn ku ci ne rek noo ci daan ñëwee rek ñu ngi la ciy xaar te di la ci séentu tey ñaan yàlla suñ boroom mu yàggal leen suñ kanam ndax sëñ fàllu mi mate na ko te eh, koñ bi taxawaay bi mu fi taxaw taxawaay bu mat la ndax kenn ku ci ne du la xeebal sa benn bis kon bisam bi nga xam ne moom rek la am mook ay rakam luñ ci man nañ ko nañ ko ci jàppale ndax mënul mënul luñ ko lu dul loolu ndax kenn ku ci ne lam la war lool ma nga ca lu mu dégg ci yow dana ñëw wala mu woo la lu mu gis ci lu baax dana la ca dana bu gisoon sax audio bu baax boo xam ne da nga koy jariñoo dana la ko yónnee kon kooku kenn amul fayam bis bi daal ñu ngi ñaan yàlla suñ borom lépp loo xam ne rek lu fi daan am la rek yàlla na yàlla na am ci lu kawe njortam te daje cee ngërëmul sëñ bi. di jiital nuyoo bi sëñ Fallou muy xalifa sëñ Abdou Diamel di ko ñaanal mu yàgg fi loolu tawér yàgg ci suñ kanam yàgg noo jiite leen woon ki màggalu sëñ sooy bu mbàkke gi maa ngi ciy woo ñëpp sama mbokki jigéen ñi mbokki daayira koñ bi ak kajoor ak ñëpp ñoo ngi leen ci ci màggalu sëriñ sooy kenn ku ne ni ci daan taxaw rek nga taxawa ko ci di jéggulu ci kàddu yu baax nag ndax bu sama kilifa waxee walu maa wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi bin amee ndigalul sëñ Abdoulahad Mbacke moom sëñ Sohaybu waaye am ko it ci ndigalal sëñ Abdourahim mi nga xay mooy sunu waajur te nekk xalifab sëñ ma Massamba Diop waaye nag am ko ci ndigalal sëñ Cheikh Say mi nga xay moom moo fi nekkal sëñ Sohaybu ñu wax ni njàngkati alxuraan yooyu nga xay sii ni e, sëñ bi tudd na ko léegi ñoo ngi ciy liwaayu képp koo xay siini ni daa nga jàng la nga daan jàng lépp xam nañ ko ab limi lim la danga koy gën a man ndax yàlla dogal na ñu fekkee ko ren te daan ko def ay ati at waaye nag di ci wax waa bitim réew itam ñëpp koo xay si yaa ngi ci diaspora bi rekk bitim réew ñoom it na nga xay nooñu laan daan doxe te Cheikh Abdou Cheikh euh, euh, moo ko waxan nee na xaw ma fu ñuy fayee wax bàyyi jëf te ñoom ay jëfkat la ñu yoo xaye gis na niñ daan doxee ci bis bi te dañoo wax ni euh, alxuraan weeru koor ak Eh, bisub Serigne Soy bu mi nga xay dafay nekkaloon Serigne Touba ci njàngal alxuraan lépp lu ci waaye def rek gis nañ ko noo ngi sant ñëpp di woo ñëpp di leen yaakaar ci bis bi ci njàng alxuraan salaatu ala nabi ak lépp loo xay si moom lañ daan def ci xasaay ñu def ko waaye nag. du ma mën a def lu dul sant nag sama waa kër yi bi ma santee sama njabootuk bopp gi nga xaay noo bokk sëñ Abdou Jamil waaye danaa sant niñ daan taxawee ñoom ñëpp ñoom koñ bi ci bis bi di sant uh, sama uh, doomi baay yi nga xaay ñoom it ñii noo bokk sëriñ bi waaye teewul dañuy jàng alxuraan di fi andi di ñaan yàlla ak yonente bi di sant it waa tawa tund yëpp noo ngi leen di woo tawa ak njaa xuru mbàkke bàyyiwuñu kenn di di woo waa dëkk bi yëpp te xam ni foofa moom fa lañ ko daan defee ci njëlbeen waaye léegi lii la yàlla dogal kon nag noo ngi sant yàlla ak yonente bi di santit nag li tàmbalee ci góor a sekk ak aarona euh, mi nga xay si ni ñoo yor euh, melokaan wi nga xay ci lan mën a tasaaree lii nu bëgg te mënuñu ko woon a tasaaree nii ñu tasaaree ko nu ko nii kon nag noo ngi ñaan ci kàttanug Serigne Souhaibou seenub liggéey sunu borom barkeel ko te lu ñu def sunu borom def ci ndimbal ak xéewal te xam ni inna Allaha laa yuxayyiru maa bi anfusihim la yàlla wax ndax yàlla moo ni duma ma soppi jamono mukk ndara du waa jamono ñoo soppiku lii nag day tax ah, mbir mi gën a jëm kanam gën a baax rek. boo gisee xele bii nga xay moo doon jàng alquran bi di soxna si tey di sunu doomi waaye alxuraan ji yàlla ci miy joxe alxuraan na ko sëñ Touba waxee woon di góor ju jigéen da ko naan loolu la yàlla dogal mooy da koo bind ñaari yoon ñaari kamil da ko bind kon nag mel na ni kon sëñ sàmba jóob lam waxan ca ni Eh, eh, mën na maa julli mën na maa jàng mën na maa eh, jaamu yàlla ci wet gu nekk loola njabootam gi dem def na ko te sëñ waa dafa waxoon ne sibti ka sibti rasulullahi ay suba daa ku nag sëti sëñ ma Jóob it war na am lu ñu xool loo di ca doxe di ca waxe moom moom yeneen moroomam nag yoo si ni ñoo ngi fi yoo xay dañoo bind ñaari kaamil wax dëgg yàlla kon nag noo ngi sant yàlla di sant ay waajuram ñi nga xay yar nañ leen ci diini ak lislaam alxuraan jooju nag moom la sëñ Tuubaa bëgg euh, sëñ sooy bu bëgg lool di ko defee nii mu koy defee ñu di ko defee fi mu toll tembe at mu jóge mu jàng ñaari kaamil kon nag noo ngi leen xamal ni noo ngi ñaan ci yàlla ak yonante bi kii maye te ku may nga am yàlla na leen may jàmm ak barkeb alxuraan may ko mboolem réew mi nag ak ak ak ak ak ak njabootu sëñ Massamba Diop yëpp bàyyi wuñu kenn jërë ngeen jëf loolu rek laa ni woon danaa ko ci wax ni moom daal yar nañ ko jàngal nañ ko te jàng mooy yar te du ma mom dong yeneen a ngi fi ño xay si ni jang nañu alquran ba mokal ko bind nañ ko lolu nak ak cant yalla lan koy defé ci keur seigne massa mbay job gep nak la jërë bu ñu alquran di ta di ko defal sëriñ soyebu ñu man ci lool wax deug yalla dañuy sant yalla sante yonent bi sante Touba minu ak soyebu tañ di ko defal limu bëgg ndax li dañoo xam xel ni li bëgg na ko ndax at mu jot mu kon nak alhamdullilah rabbil alamin sant na ñep gërëm na ñep wa salaamu alaykum wa rahmatullah bismillahir rahmanir rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المحدود عليهم ولا تالين